à la chaîne des patriotes. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des informations en discontinu sur le web. Abonnez-vous. yi wër di véhiculer message yooyu du ñenn lu mooy les jeunes de PASTEF ce sont ces jeunes qui aujourd'hui véhiculent ce message là parce que jàpp nañu ne Bougane noonu Ousmane Sonko la c'est une aberration et c'est dommage que réew mi nit ñi mun a nekk ci affaire fen affaire manipulation affaire yàq der affaire wax yoo xam ne kenn xamul fan lay jóge man Macky Sall damaa gën a liggéey ndey ba may liggéey di ko jox ci suuf au nom de quoi man Bougane ku ma xam ci réew mi xam ma ngir fit xam ma ngir dëggu xam ma ngir liggéey li ma liggéey ci réew mi li ma def ci réew mi amul benn yoon boo xam ne am naa fa sens interdit donc gisuma luy tax may underground wala quelque chose comme ça ñoom ñi nekk ci loolu ak di ko wax ci réseaux sociaux yi rek la ñuy toll di ko wax mais li wóor mooy yow xam nga ma ku ci jàkkaarloog man wax ma loolu ma doxaan sa ndey yow xam nga loolu. waaye balaa boobu ñun dafa am loo xam ne tey daf ñu metti ñu bëggoon ci wax. ok ñu ngi lay dégg. waaw mooy buggaan doome xaraam boobu saaga saaga sénégalais yëpp parce que saagawul booy passé fi. Mhm. ah waaw ñun. ñun loolu ñoo ñun ci loolu la ñuy njëkkee d'abord moom doome xaraam boobu noonu. Mm-hmm. waaw bu amee lu muy wax na dem fay boo yi nga xamee nii moom moo leen liggéeyloo ba sonn. Mm-hmm. waaw jooni jooni. Mm-hmm. jooni jooni liggéey am xaalis bu bari mu jël xaalis bi dem campagne ko bu amee lu muy wax na wax ci loolu. waaw dëgg dëgg na wax ci xaalisam bu mu commencé liggéeyee fan la ko jëlee. waaw nekkuloon lu dul simple journaliste na wax ci loolu. waaw dëgg dëgg wax ci na wax ci na wax ci mbir mi. moom si jëm boppam ñun gaa ko fi wax naan xeet ba mu nekk daf koy daf koy nëbb dafay nëbb xeetam. Ah, ah, waaw ndax dafa xeeb xeet xeet boobu sax daf leen a xeeb daf koy nëbb. Ah. daf ko ragal a wax daf ko rus a wax. ba pare bëgg a ñëw di gëmloo Sénégalais naan gëm sa bopp. audio bu mu def gars yi dégg nañ ko mu ciy saaga booy passif saaga wu ci booy passif sénégalais yëpp la saaga. waaw dégg naa ko. li yooyu politiciens yi nag fenn hmm. la ñu mën. waaw bu ñëwee fii di gëmloo askan naa leen waaw il faut être comme ça di jaay nit ñi la moral di jaay nit ñi xam-xam di jaay nit ñi te boo fekk na gëmuñu dara. Mhm. gëmuñu dara. Mhm. waaw tey il a montré que gangster ci mafia lay dund. Mhm. waaw parce que saagay ñaaw yi nit bu kilifa boo ko bu ko sañee saaga naan da ngay jiite dara ci réew mi y a un problème. y a problème. li ngay wane nag bugaan jaaru bugaan yi sénégalais dañ leen a war a xam. wallaahi jaaru bugaan yi ba ñuy wàccee suratul munaafiqiin ñoom dañ ko wàccee. waaw suratul munaafiqun bañ koy wàccee. genre buggaan yee tax ñu wàccee ko parce que buy wax sax. da ngay sentir que ni kii lii muy wax naturelul ay kàcc la. waaw dëgg dëgg waaw jësam ak ay waxam buy wax naan nga yaakaar ni kii il incarne des choses yoo xam ne ci moom. Mm-hmm. waaw intellectuel bu muy incarne newul ci moom xam-xam muy incarne newul ci moom. dëgg dëgg bëgg réew bu muy incarne newul ci moom gëm boppam bu muy incarne newul ci moom day fen bu bu gëmoon boppam xeet wu nekk du ko du ko nëbb. waaw hmm. xeet bi bëgguma ko wax parce que man nekkuma koo xam ne c'est par cela man gëwuma ay affaire xeet ak yooyu. waaw dëgg la mais kon te Sénégal noonu la bindoo xeet gu mu nekk daf koy nëbb. Hmm. daf koy nëbb ba pare bëgg ñëw bëgg gëm doo nit ñi ni moom dafa gëm boppam. booy yu mu saaga nag saagawul booy passé saaga bu ñaaw boobu mu génnee ci laaminam. Hmm. ku mu saaga ñun tamit sañu ñoo fay jobbu ndayam saa yu yeewoo ñun ñoo ko wax. Ah, saa yu yeewoo rek jobbu ndayam. ñun ah, dañoo kon kilifa gis nga def ko ñu delloo ndayam saaga yi ñu ne ko sa jobb nday saa yow yeewoo. lan la def ci réew mi. dëgg dëgg loolu bu amee lu muy wax na dem na na dem di nga maam fay fay fay booy jooni jooni bi mu liggéeyloo. liggéeyloo bi nee na xaalis kenn du ko ah, liggéey da nga koy liggéey sa digg lafal ndey gu bugaan sa digg lafal ndey sa ay nooyee rek jobbu ndaay moom ak ñu sa digg lafal ndey ngay liggéeyal kay fii lañ jël Sénégalais yi def leen eh. di ñëw di jaay ñi affaire intellectuelle de gauche à droite boo fekk na lu muy wax gëmu ci dara eh. waaw tey nag weeru na tey weeru na Mm-hmm. waaw kon te audio yaa ngi génn ñi ñi di ñu jot ci audio yëpp xam nañ li may wax. Mm-hmm. gis naa déglu naa ko kay. waaye la ñu dem rek ñoom ak politiciens yi nga xam ne dañuy jëlee nit ñi ay dox di leen nax. ah, ah bu ñu taxawee ci. plateau télévision yi. puuskatu puub la rek puuskatu puub booy bu muy liggéeyal booy bi ñu doon wax ni foofu doon liggéeyee mu leen di mu leen di mu leen di mu leen di proposé ay canapé. ah ay services canapé na wax ci loolu. am na ku mu ci biiral ba takk ko na wax ci loolu. am na ku mu ci biiral ba ah? takk ko am na ku mu ci biiral ba takk ko daf koo takk waaw xoolal ndax promotion canapé ku soxla liggéey nga war koo jox liggéey fii di jàngal gis nga ah. déglu nga audio déglu nga non déglu naa ko déglu naa ko déglu naa ko ba mu ko déggee la ah, saaga nday ba pare yow yaay génn fii nga ne yow kilifa ah, dëgg la waaw dëgg-dëgg ah ma ko dëgg-dëgg yow sa yow gëm sa bopp yow en tant que gëm sa bopp nit dana dem ma ñëw ci affaire imaam ok waaw demal waaw xam imaam yi mm-hmm. ñëpp xam nañ ne ay politiciens lañ. Mm-hmm. ki ko jiite kooku xàmmee woon naa ko ndax imaam la woon nag. Mm-hmm. waaw kooku moom du taalibe. waaw waaw ku mu ki jiite man ki ma gis mu def lii bi liberté six la ne woon kooku du taalibe. kooku du taalibe kooku fii yi ngeen nekk nii ci yooyu la nekk xàmme naa ko bu baax. Mm-hmm. kooku jiite na ma liberté six ba may loole foofu. waaw moom moo defoon discours bi. souvent moom si discours il fa faisait comme université tamit bi ma fay jàngee. ñi nga xamee moom la ñuy tuddee ahlu sunna Mhm. ñi ñi ñi gëmloo seen bokk ni ñoom ahlu sunna lañ bëgg a génnee ñeneen ñi ci ahlu sunna ñoo bokk li ñuy def seeni discours lu ci ëpp si en français lañ koy def seen xutba kooku yi tamit ci la bokk parce que moo doon jiite grand mosquée bi nekk Liberté 6 boo passé rond yi ba may loge foofu jiite na ma julli foofu lu bari mhm. xamee naa ko bu baax imaam la woon nag dëgg-dëgg ah mais nag du taalibe mais mais bokkul ci ak. ahlu sunna ngeen nekk ci yooyu la nekk. kooku tey moo dem ci Macky Sall xamee naa ko bu baax. mais kooku kooku bokkul kooku bokkul fenn. kooku kay fenn kooku seytaane boppam la kooku seytaane boppam la na leer mu ngi nii. waaw li fi li fi nëbbu daal moo fi nëbbu. Mhm. mais li fi feeñ bu fi feeñee. Mhm. nit ñi dinañ tiit. waaw léegi nag tantaan nag kuy ki nga xamee nii moom loolu nga wax noonu man d'accord naa si parce que mbuub moom sëñ bi mbuub. Mhm. tey. am na loo xam ne sañ na ko sañ na ko duut baaraam mais am na loo xam ne sañ na ko duut baaraam. Mm-hmm. parce que tamit moom taalibe la. Mm-hmm. am loo xam ne sañu ko wax ci sëriñ si ci bi la ko sañ a yemale. loolu moom gën fi. Mm-hmm. waaw am na affaire yu bari yoo xam ne ni tey buñ ko doon bu ñu ko doon teg ci dëgg danañ doon remonté ba remonté ci kaw comme ni ko baat la mi jaar di waxee ba ñuy tudd fii Juliana ci affaire Sonko bi. leen bàyyi wax yooyu mu sedd. boo ko toppee dinañ yegg ba ci sëriñ si. ñii la ko waxee ci télévision yi gaa yi dégg. Mhm. parce que société bi moo demee noonu. kon mhm. donc moom xëy na courage am moo ko may wala ragal gu mu ragal moo tax mu yem ci mu yem mu yem ci mu ye muy critiquer seulement imaam yi. Mhm. waaw ba yéegul ba ci kaw loolu moom dëgg la. parce que gars yi jot yàgg nañu jot ay financement yoo xamee ni gars kenn xamul fu mu jógee. waaw mais àdduna bi moo demee noonu parce que tey jullit ñi seen jëngoog yow en tant que jullit boo fi jógee liggéey bi ngay liggéey. yaa ngi dégg mu lew la dong. bu bari bi nga liggéey mu leew la. Mhm. nga ni da ngay dem aji ji màkka lan ah. moo lay yóbbu roppalaan bi lay yóbbu danga xam lan lañ ko defaree da nga mhm. xam roppalaan bi ñan ñan ñoo ko financé air bi ngay wax noonu waaw wala wala compagnie de voyage bi lay yóbbu compagnie boobu nga xam ñan ñoo ko financé li ci ëpp ay góor jigéen na ko financé mhm. hmm? tey boo demee ci ci ci ci jet privé yi wala ci avion yi seen jéem bopp siis yi toog ay marque Gucci et tout da ciy am waaw danga nga xam yooyu noonu ay signification lan la ay góor jigéen ko ñoo ñoom ñoo koy financé la hmm. te terewut même avion boobu moo la yóbbu ba Makka. Hmm. nga dem ziyaare ji. parce que hmm. jullit ñi seetaan nañ seen bopp loo xamee nii buñ bëggee dem ziyaare ji yonent bi sax nasaraan see leen di jaay wala moo leen di jaay loo xamee nii moom la ñuy demee ziyaare ji yonent bi. ASID TV la chaîne des patriotes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des informations en discontinu Sur le web, abonnez-vous